dara ko xaadiri saaru aji bay bakkaat matiyatu saaru makala billa alladhi jaazana la yaadani xamsu juróom la wasnaa juróom ñett bu ko yaadani ci kaabe am yàlla am ni juróom yaar yoonu ci mën a ñooñu ci bal jaar jana ñaay la fi nekk am na meññet meññet am alxuraan mooy saaru ci ba am ni ay bët lañu rafet yu naat yu faqaroo ñoom ñëpp a dend juróom yaari am yi juróom yaari am yi ñu ngi mel ni ndam dugub dugub moo xam ne dañ ko dañ ko daane am yi juróom yaari la gis nga pour daal jàll rek yàlla dafa dindi dañuy daal ay juróom yaar yàlla bu bëgg juróom ñaar la yaara bi nag jamono ak xarab xarab mooy nekk waay bi jamono mooy li ko jëf di tàbbi barab mooy suuf suuf yi juróom yaar lañ jamono jëf yi juróom ñaari jëf lañ moo tax jaanama itam juróom ñaari jéere la jaanama la ba fayal baqar jaxiim kamaraaw ya aljana nekk juróom yaari at waaye yàlla na ko mu jël daan bi dëggalu ñu ñaax naa wu jiyaade moo tax ak yàlla ñu dali ci dara jël juróom ñetteel daarul jalaal daarul xaraar daarul naim jarab mawa jarab yu xunt janatu adni ñu juróom ñaar ñu tëj ko daw ñu juróom ñett am ñu juróom ñaar lañ ñaar juróom-ñaari guddi bu ko rëy ba guddi guddi benn allah yàlla alam aji xam di muraadu di na man di jaanin moom it ci laa suñ bapakaay la laa alam di muraadu yi moo yëg ci juróom am na ñu ne alif laam ra amin mu di rahman waaye li gën a yëpp laa alam di muraadu ay moom la ñu yàlla ci juróom yi rek dañ jël ci daal ba fa ñu laaj ci kenn yàlla de alxuraan bi de yàlla ko wàcce yàlla na alxam bi ñu gënaay ji ci góoram alxam bi ñu gënaay ji xam ay mbindeefam ne saa bi gëm bi yàlla na di aji bale ay bakkaar yàlla mi nga xam ne dana ba bakkaar ci kaw baa xam rek waxaat bi taw bi day aji nangu tuub ci doole wu tey bi nga xam ne kat ci mbugal la maandoom rek yàlla baal na rek a la tuub ndax gërëm na la ko su kat mbugal la nag te loolu du tooy ci moom maanu la ci moom tooy ci mooy tappali ci jëf ci jàmbur yàlla moom ci jëfam rek la tappali ku moo tax tooy jaamam yàlla bu gëm yàlla bu sax yàlla di def di mën a gëm yàlla su ko neexoon bugal ko te kenn wax na daf ko tooñ waaye nag bi nga xam ne moom la te sëriñ bugal nit dafa tooñ ñu ne di def loolu la ci kaw teel daa yaa def na koy daa ngi bëgg a yéene gën a ci moom ah Ibrahima dara moom maa ngi jaajëf jaajëf bi saa laaj bi alxuraan yàlla indi leen ñoom dara ñaari soxla na ñoom ñoom ñoom makale ñoom makale ñoo dëng la leen di waral ci yàlla yaa la ba xam ne moom ak sa sa bi jaadu ci réew mi ba tamit bi sababu dund di ko am nekk ci seen jàmm loolu moom la wax mukk ba nga defee ndax yàlla daf leen a bëgg. seen nit moo di ko faral lépp loo xam ne mu jëm safara la loolu lu jàmm rek nag nga xam ne lépp loo xam ne wax dëgg yàlla jaanaat yi topp loolu dund bi la rek dafa fa teel dina xam ne mu jëm la gën a xaw ma nooy nooy wala saabu kuréel yi mbaa yi njëkk naa jël en fait moo dara waaw ma tey de bu ñu ma dindi yéen fa xeet bu la doon ñu jigéen ñu jigéen yaa ko ñëw ñu raay ko yeneen bi ci nag ba ñu ñëwee xeetam ñu góorgóorloo mooy dañ ko defal ak yeneen sa yàlla bi وجعل له سيدا بين باطل باطل ñu ngi koy jëlee ñu ngi ci ñoom àll ba gën a dañuy baax di baax itam dañuy bëgg a sant aw sa loo xam ne day ñu tuddee tamit yàlla taxawal. waaw xam suuf dama xalaat leen rek bañ defee loolu ma xalaat leen ñoom xëy na ñu ngi koy lépp ñu ngi ñëw ñu ngi ko àll sa mën a. parce que daanaka day nekk ah xaalis xaalis mu nekk maanaam dama tax a jënd ak waayam te xaalis dem nañ xale ba ñu jëkk ña dañ weddee yonent ya ak xam la wax kalimaatu rabbika baa ci borom sa kii la am la am na jahannama am na jëf ñaa nekk fala rek nañ la annahum naka ñoom asaabu ñeere wala mu safara lañ nga xam ne yoon danañ ñeena alxaqa arab la yàlla ñeenu la arafan la wa man xawla woo waa ñu nekk ci yoon sabdoona danañu sabbaal yaa nga xam ne yëngu ñu lamboo daga kalam seen wala ñu dañu gën di yàlla waaye sax na dañu balu ñu ñu ñu am ñu gën ñu malaaka yi nga xam ne ñoo yéen a xaras juróom ñetti bakk lañ yoo xam ne ñoo yéen a xaras wala juróom ñetti junne ci malaayika wala juróom ñetti malaaka yoo xam ne yonent ne naa leen waxtaane ñoom ci ñoom ne malaaka ci ñoom gannaaw mën naa naaw ci diggante nappam bi ak ji de ba xam juróom-ñaar fukki junni ci weer te baax bi dafay napp ba dafa baax a war a ñaar ba xam ñaar fukki junni ci weer di ko di ñu gën a ayoon xalaatee ñun ñoo ayoon xaraf xaraf bi nga xam ne juróom benn téeméeri junni la ci ay loolu yu bokkul malaaka ñaane subhaanaka wa bihamdika alhamdu tabaara qudratika loolu la ñuy waxaat rek ci baat yoo xam ne ñun asamaan ak suuf bu ñu ko déggee daal ñu neexal baate ñun ñooñu malaaka yi ñu nga xam ne ñoo leen war a ñu ngay kàllaal seen borom loolu ci itam ñu ngay banal yàlla képp ku gëm yàlla rek moo tax benn waa ji benn jaam noonu ko ñaanal ma yàlla mu ne ko gëmal yàlla rek bu ma gën a ngay ñaanal malaaka yaa ngi ñaanal ku gëm yàlla rek ñun rek ñu ngay banal ci nit ñi waaye sax dama bañ a baal ñu defee ñaar ñaar ñaar am na gëm nañu rabbana ya borom suñu wacce ko ëpp nga bind si ñëpp dina rahmatan ci yërmande waaye ma ci xam-xam yow yàlla sa yërmande sa xam-xam ëpp na lépp la wax dëgg yàlla nga baal ñu ngi ci ñaar ñaar ñaar kàddu ci ñu ci ci cëbar yàlla képp koo xam ne ci ñu sax dëgg yàlla bokkaale yàlla nga baal de wa tabaxal ko ko bi la ko diine ko wax dëgg ñu ko dina baal ak ñu wala jëriñ la wéet malaaka ya ba ñaanal jullit ñi rabbana yow borom sunu waa këlu yàlla nga xam ne leen jamaate at nii ak jamaay sax lépp yaa yàlla nga xam ne waa këlu ndéel nga leen ko rek bokkul fa laa ak soo jëm nañu ñu naa bàyyi ñu bàyyi seen waa saa ñu naa si jabar seen waa saa ñu naa si jabar seen wa jëri at nii ak jaam seen ñu nekk naka yow anta yow alhamdulilah ñu nekk sa góor alhamdulilah ñu xarit ñu nekk sa déedéet ma kaa yéen ñu nekk laa yoo jaxam su xarale aljanna ba toog maa jëkkee woon mu ne yàlla ana sama jabar ah yàlla ne sa jabar de xaral nañu waaye nag mënuñu waaw si fii nga nekk ndax dafa ñëwoon jëm dina ni ñu leen mu ne yow ba ma lay ñaan jaamu la sama bopp Aliou sama jabar taxawal ne yàlla na waxal dëgg yéen wër na jabaram sama wàllu yi bëgguma tey dara sama kat ñoom ñun bëgg rek nañu ko def yéen duñ ko ay jabaram yéen a ko jabar ci ma xamaa jëkkër jëkkër ana sama baay aa sa baay dafa doon lu mel ni la def sama baay fa kaaroon ak sama baay ñu ngi ko baayam de képp ay xaritam ak mbokkam képp ku mu xam rek bu ko laaj yéen yéen nga koy moo tax yéen ñu bëri leen ay xarit waaye dinañ yàlla balaa seen dow daa ñëwee bés dinañ am ngir bu rëy boo am ngir bu rëy boo laaj rek waaye ñu daal di teewal moo tax foofu bu yoo xam ne jaamu yàlla yi ñu waaye dana ko am njëriñ de inna dama koy wax nga rabbi yaa ñu nekk rabbi yaa rabbi yaa ñu xale ci sa jëkkër waxtu yi yàlla na musal leen sa yaa di ndigal wa man sax ni ku nga musal ko sa yaa di ndigal loolu ci defal keroog da koy jëm yàlla faqat dañu koy war ñu ko def wa taalika loole o moom alfaw su moom ak saxe alaatu ñu raa ñu mag def keroog waaw loolu rek mooy saxe mujj ci mbugal dugg xal gànna loolu rek mooy moo di saxe rek moo tax balaa sama xam ci gën kan ba ko jaam bi jaaree foofu de dugg ci safara dem aljana waaw kooku moom nit ku gàtt la rek waaye ku gàtt xéewal ak aljana safara kooku ku torox rek ñun naka dina safara war nañu naa daw na def na xaw leen ca wàllu naa la max laay ñaram ci yéen nag ak baru moo gën a màgg ci suuf ñu nax seen am si sëg maay bokk seen xéewal bu duggee safara dafay ñaraat ñare léegi ci la ñuy baax ba mu bëgg dana ko bëgg ngir mer ndax yéen yéen a ma doon ko yéen a ma doon def loolu tax ma dugg ci safara mere xaritam mere kum la fa xam su ko defee ñoo ko ne ko eh mer mi ngay mer yëpp mer ma la yàlla doon mer moo ko rawoon ci ci xam nga def naa doon te àdduna bi dañuy naan jëm ci gëm yàlla fa tax da ngeen di wetti dañ leen di wax gëm leen yàlla ngeen képp boobu day na yàlla mere woon moo raw tey yéen mere seen bopp rek xaaral ñu wax ñu safara ñu ngi ñaan ñaan gu am njëriñ rabbana yow borom sunu amatana rey nga nu ci jëfee ñaari yoon yow yàlla léegi nag rey nga ñu ñaari yoon nekkoon nañu sa xel man yi di ñu gannaaw ba nga dundal ñu dellu ñu rey yaari jooge waaye danaa dundal ñu ci sa tey yaari yoon nga dundal ñu bañ nekkoon sa xel man yi gannaaw bi nga dellu ñu sa xel gannaaw bi ñu dee nga xam ne dee nañ yaari yoon dund nañ yaari yoon wax dëgg naa dugg nañu dugg nañu dinaa ci bàkkaar bi léegi nag dugg nañ nangu nañ lépp loo waaw waaw wax nañoo ko def ci bàkkaar ñoo ko def xaal min sabili ndax dee yoon na ilaa xulub ñu jëm ci génn ci dëgg safara wala nangu nañ nag du def xanaa dañuy génn safara bi a ne sax di dum moomu dem dugal daa nawoo ci saa na ka min mbiram jub ndax dee ci def na baaw yàlla wax de woon ñu ay yiwe safartum ngeen weddi ko suñ wax a na biir ci moom yooyu doon ngeen dëggal suñ ngeen toll ne loolu dëgg wala mu xatte tey digal nag digal illaahi ñaan na yàlla alaali yi ka daal di kawe ji neefam al basir ka daal di màgg rek buñ ko tuddee ñu moom tuuti rek woo moom la fi mooy bul bi nga xam ne yuri wal na yi tëgg na ñeetal wala nag dina dama wàcc wa may ko sakkalu waa di jib man ñu ñu ndare ka mu dolli ci boromam rek fatoo jaamu leen la yàlla mu ngi gën a nit ñi way sallam la wajal ko dina ak wala sa léegi gis na ko alkaafiruuna way weddi na de gëm leen yàlla ba topp yàlla bu naqaree yooyu bëri yëpp bu leen neexee yëpp yéen def leen loolu rasama darajaat yàlla mooy aji yëkkati ko daraja moo xam ne na way kawe wala rasama darajaat yàlla mooy aji yëkkati daraja ci sasa loolu arti mooy borom xaraf yàlla moom xaraf moo ko bind ñun ci gën a mu sànni roo wayu la min amri ci gën waxam ala ne daaw ci suuf bi ne daal di jaam ñun su rajo nam ragal la yow ma talaata ci sa daje la ci kay ko yàlla la yow moom de bañ am bari ko na way génn na nit ñi ñëw bàmmeel laa xaana nit ñi xalaat yàlla lu ñu ñoom tey dara rek waat leen ak jëfam dara ba rek tey jëm yàlla mooy fi nga xam ne mooy jëfam ne nit ñi ñoom tawal ñu suuf ñëpp su tooñ ak kam doon tooñ su doon jaamu ak kam doon jaamu ñëpp dañoo ci benn xar ñëpp jàkkaarloo rek yow moom def dañoo am baari doon way génn la ñu laa xaana bu ci xalaat yàlla lu ñu ñoom tey dara rek ñëpp toog ci kanam yàlla ak seen i jëf rek dara na buur lii naa ko ñaaw ñee baloon ba nañ ko sax waaye jàkkaarloo yàlla fekk yaa ngi am benn ñaaw def rek li man ñaaw al mulku góor al yow ma tey yàlla ana kana moom nguur tey rek jàpp ngeen ma tudd góor suy na yàlla rek ngeen buur buur saalum buur kii buur kajoor buur jolof tey ana ban góor tey benn buur amuñu rek benn sant boo déggee wax daal sànq ñu naan kot waaw moom nga dégg rek mu tontu boppam ne li baax ñu naan yàlla alwaay ñu gën a sonn alxaar te daal ñu natt jaamam de tey kay nguur ñu naan la yàlla rek ñu nga xam ne la te moom ak gaami rek ak yow nag koy la def na koy ci li nga bakkan ñu naan ko sabab jëlam tàngoor de tey nag bakkan ku nekk lu mu mës a tàngu ngeen ñu la dem ay yoon danañ ko ko fay rek ci kenn ñu ñor ñaar benn kenn la ñu laa naka yàlla période yu taal yi daaw ji taal la mu ne mbindee ñëpp dina leen ñu taal dina ko leen ñu ko dara ji ko di ci bëccëg waa am juróom aragal loo leen yoo ma la si fekk bés doon nit waa dal jaamu aragal loo leen dëngal yàlla ci nga xam ne dana ñëw de ci danañ ko yow mu la si fekk waa ji ci ne aji jageñ ndax jage na de ndax lépp ñu digg digg na ba noppi ñu xulóomu ba xol ya la ko xanaa jiyaay bi nekk la fa proxee rek keroog nga xam ne jaam yëpp dàq ba ku ba baloo ko kuro saa bi ñëw nit ñi way teew ak jàqale bu nekk ni jàqal jàqal jàqal jàqal jàqal ba xam ne di nga defal ci bëgg maalika ñu ñëw ñëw ñëw wala ñu naan ñun aji xari wala sa doon di daaleen am rabbu ka aji rabbu ka nga jëm sa bëgg rek fër ñu am xarit ñu yoo xam ne daan nga toog jaramam ma rek pour dégg li ñëw ñoom waa xarit dana ram xaritam ramu itam dindi dindi ñoom daañu ramoon nga def yónnee dañ ko ramu ramu mu wéy ma nga xam ne ku ramu ramu yónnee bi ramu alamaari ramu wari day bi ramu ñu gëm yàlla te ñun ramu sax nit ñi ñoo gëm di ramu de yàlla mu dana mu xam moom bu wóor ah yéen a laajee pour ñu bëgg yàlla xam na lépp lépp dañu jaam xataa pour ñu bëgg sax pour nit yàlla nga ragal ñu ko. wa maa toog a xoree rek ak lépp loo xam ne yaa ngi ko nëbb ñu ko xol kenn na ko rek wallaahi yàlla bi dana mu xàtte bi ràq ci dëgg wala dina ñaan ka doona da ngeen jaamu leen yéen a ngi leen màkk lii di moom laa gën yàlla moom dina xaar te daa te dëgg la yaate waaye tey bi nga xam ne ñun makkaan koy xoote ne ay yàlla lañu suuf yéen daa te garab de ñu laa naka yàlla huwa moom comme ni mu daal di dégg seen wax ak dëgg mu aji xam seen i jëf de xawala ñu fi woo ndax dañoo doxul ci bari ci suuf dañu ko dañ ko xew kan naka na jàng ko bëgg leen ñu mu ñaan ak daal ñu ko ñu xam ñu ci ndëkk seen ma xanaa dañoo mës a dox ci àdduna bi ba gis jant yi xëy na jëkkee nga xam ne ñu leen xaaral ba seen jant yaa ngi ci def ba tey daanoo nekkoon nañu moo ñoom ak sa bëgg gën a xat ñun ci ñoom dañu leen xaaral bon doole fu waxuñ ci kattan ñoom ñu lay ci dundee ñoom ñoo bon a xasab ci seen i ku yi ñu sànni ñu naag ñu ci yokk doole ñoom nag man jeexit bi ñu joxe ba juddoo ci ay tabax ak yu jëmbat waaw asalaamaaleykum te xalaat na leen yàlla dugg na duñ ci bàqaatee te ñoom ñu ko wóor yàlla yàlla xalaat na leen ana ñu ana ñoom loolu ñu kanaan parce que ana sibaat ana sarana wa maa kaana nekk loolu ñu dem ñu mu fële ba pare yàlla xalaatee amul kenn ku ma ndax seen diggante mu waaye bi solo liggéey amoon gën a ko ñoom taanam nekkoon na saat ñu di ko dénk suñu ay yoon seen di déy naa di ci kaw gi ba kafaroo ko jël de faaxaloomu laa taxara yoon yàlla ñëw na ko moom buur xaw ñu aji dëgër la mu kat bi naa xaw kat bi wala mu ko fa may rek wala xalaat naa ñu ngi la ñu Musa Musa daa ñu amaan la kaddu ñu jël ñu ba nga ko la ñu jël daa ji yàlla yéen ñu na yéen yàlla Musa jox ko juróom ñeent kaddu ak la ñu mooy kaw rek yaa taxaw na mu jëm ca Firawna waaye amaana amaana garaafam wa xaaroona xaaroona rek mbënd gàddu na ñu dafa wax nañ ne kenn mënul leen dara ba xaaroo kay wax nañ ñu faa ngóor waaye ñu jëlee la ñu taggaat bi dina rakkal la ko ñu ne ñu faa dafay nar rek yàlla ñu ko ak jabar la rek mu dikkal leen dara ko jënd bi xaaral waaw yow loo rey leen am naa la gën a loolu góor ñaa ñaa am na gën nañu maa ànd ak moom waxtaan yoo dafa leen ñu saa am ak jigéen seen lépp amul xaaral salaamaaleykum ma delloo ba ñu saa rek ci sama ak ñoom loolu jigéen bi jigéen bi rey leen rek loolu jigéen bi jigéen yàlla na ñu ngeen bàyyi ko ñu nekk suñu jaam ba maa kaa ñu teg na ñu texe mooy yàgg na ilaa bi balaa ñu balaa ñu nekk ci xankare waaye texe ñu xër ala ko rek waxaale ko ak salaamaaleykum zaroni ba yéen a ak ma rey Moussa Moussa vraiment pare na ma rey Moussa kenn jàpp ko kat te su dee ak dawal day ngi kon xaaral yow ko kenn doxul diggante ne Moussa mun a bale ma rey Moussa mun a ko dee dee dee dee wala yàlla na ma war a doyoo boromam na waa yàlla am jaraa ba xam nañ ci man duñu yéen a xamaan axaabu dana ma ragal ak yu bëgg la bu mu wasa dina bu mu ñëwee man ragal naa ne Moussa bi balaa jëkkee fàttali ñëwee suuf si. li ma sama yàlla yi ñu doon jaamu man ma yàlla ñu naan Moussa ma gën a dindi loolu dama ko yoreel waaye Misra Moussa ñu nag te daal ci suuf si Misra am xasaara yàq Moussa dafa bëgg a yàq suuf si Misra gis nga ku yàlla wàcce dafay liggéey noonu muy yàq mu ngi yàq mu dee réeral de Moussa dañuy woote mooy réeral Firaana moom loolu la gis mu di ay yàq rek Firaana moom gis nekk moo di yàq loolu la gis ne moom di réeral de kon nag ñu gis luy perte li perte ñu tamit nag dañoo ko naxal parce que amaa sa loolu nag waxaala ka wax Muusa Muusa te dëgg ñu sa kub sa am wax ñu ne ka man wax ko mu gën man rabbi ci borom sama wa rabbi ci mat borom seen ñu ko limu takabbiran ci jëpp aji réeru daa yow ñu ko gëm ko ñu ñu daal ci dëgg sa Muusa ne man ñu ñaar ci sama borom di gën di tax a juróom waxaala ba waxaala juróom waaye moom itam juróom jëm na Aliou Faraama ak Moussa Faraama benn waaye ba xam ne dafa jëm ñu nga xam ne gën a fi te doomu bay tax Faraama la ñu ne it ñu dëkk bi ñu ne xamoon moom la yonente wax naan ci ko ñu ñett lañu ak ñu ma jaar moom ñu ma ca yaasin ak Samoon mi moom ñu ne Aliou Faraama Faraama jëm Faraama benn waaye boo xam ne dafa gën a ñëw dafa gën a te doomu day sax Ibrahima la ñu ne lépp dëkk bi ñu ne xamoon moom la yonente wax naan ci jokkoon ñu ñett lañ Abiyu Najaar moom ñu mësa Yaasin ak Samoon bi de moom ñu ne Ali Ibrahima Abubakar Sadiq moo leen ñetteel te moo moo ci gën kooku daal di wax ne waa joo xam ne doomu bay tax la ci Ibrahima yowoon na Muusaa te du ko nëbb ba man danaa rey Muusa moo jóg taxaw rek ne ko da ngeen koy waajoo xam ne waxul lu sama borom sëriñ bi ne kaw jëf bu tëkk lekk dëggoom te ma reyee loolu su waxee dëgg nag wan yéen mbugal dana wàcc ci yéen laaj nañu yenn borom benn borom nga yéen a saaba yéen a ko sallallahu alayhi wa mu ne benn waay rek ci benn jotaay ci jotaayu Firawna mu wax atakuna rajulan yaqulu rabbi Allah yàlla daal di ko ci dikk alquran ñu ko jàng ba faat na ñaan kaam boobu ñu doon far biñ di dem googu ak ca ba war ñu xataat ko ci jaar seen gannaaw wallaay di jàng yàlla ci makka gi ko nëpp wallaay it laajal ay ànd doom ñi nga xam ne yàlla jàng na leen ñoo jot jamono yonent bi te dëggal ko ànd ak moom ñooñu kenn dootu leen jot ba faat na yéen yonent bi ma ne sallallahu alayhi wa sallam dugg mu doon jamono yu wurut sax di jottal mu gis de di jottal saa wala ñu gis saa suñ dund la ñoom rek yéen a gën ci xel yi yonent ma ne ñu gën ci xeetam moo di maasam mooy saa la sax maas da mooy taabiin ya topp maam ga leen topp de mooy taabiin ya taabiin wax na feneen sama xeer ci lu mel ni kaw amuñ jël jël yi amuñ ci lu ciy jël wax na ne jël ji sama xeer mooy ñu jëkk ñi ak ñu nit ñi ci diggante bi ndax nafa ji waaye dara boole ci ñu dem yaa xaw yéen sama ndax ñu ànd leen ak murti ñu al yow ma kay kaay ñu nit ñi ngeen doy not ci lan ci biir bi moom waaye ba mu wax ba tey rek mu ngi wax Alxuraan waaw te nit ñi ñëpp xam nañu léegi nag yéen a am seen nguur yéen a moom Misra waaye sama nekk naa ana ci beneen bi ñu gën a ñëw parce que daal di ci gën a yàlla ñu jaar naan leen di ko nangu waaye su ñu waxee indi yàlla bi nag indi yàlla bi yàlla ñëwee ana fi ñu dimbalee xaaral ak Firawna Firawna naa wuti ci indi ma leen ñu daal ma araam wala ma dimbalee ñu ne man dinaa wax naa ko ba noppi dinaa leen di ma dem ci jiitu mooy wàllu Moussa rek ba ma ah di ko di bëri ma leen di daal ba di la waxaat daal yow dañu xanaa dafa leen ñëwaat jot ñu jub ndëm bi gërëm ci tuuti ñu wala yow ba di la waxaat daal yow ma waxaat ci kërëm am lool waxuma leen dara lu may waxee rek Moussa te ku leen jàng lu may waxaat dama ko dem rek ba xaaral sa wax nga jiwaale nga xam ne ah man a gën na mu waaw xam nga ñu ne ma ka man akaafu dana ma ragal alay bi jëriñ ñu koy wax daal di waaw kenn du ci réer ci góor la ragal naa dina ma ragal yàlla yi dégg nga dégg yow dara ñu leen jëkkoon loolu dana ñëw ci yéen de mu nga dana wàcc ci yéen de daal di ko firi li ko daal di xaw di ñëw di def baa xam ne ci ñëw waaw dina ñaar ba sama gàttal ma loolu gannaaw ñaanal ñu baal ñu woy nekk lañ ci gannaaw doole ma laaw def ma laaw def ma wóore ñu ngi gis namm namm ñu mën a tooñ ne daal ci jaamu de yàlla bëgg tooñ de waaye xam nga ci ñu sama ñu ñu naka man axaas na mara daal ci jël yow mata naa ci def ko tan dara ragal naa ci yéen def ko def yàlla ba xamé ñu la woy ñëpp ay ñu ñaan gana ay ñu sabara ay ñu taxé ay ñu taxaali ay ñu alquran ragal naa boo bëgg loolu mooy loolu nag dafa dañuy tëdd mujj dinañ dem ñu leen di woy tëdd maanaam suñu benn yëngal ñu laaj ci mbugalam yàlla ñu naan ñu naan ci terrain bu ma ñu ci daaw ci réeral na ko yàlla xanaa la wala ci ñaan ko ñu naan dinaa ci jubal wala xam daa ci jubal na leen ñoo ci ñoo ci xam jënd ci dañoo ci fa ak ñu la ci nekk Moussa ñu ñëw ci fa doomu Yaaqoob la ki nga xam ne day woon waaye loolu ñëw ci li ñu mooy ñëw ci fa doomu Afraasim waa doomu ñëw ci fa ñu ñëw ci fa ñu doon na doomu Afraasim Afraasim mooy Ibrahima ci kan la kooku nag ci daal gën a doon li nga bëgg a kooku nag mooy yonent bi bi ñu jaam rek ñun dañu naan ci mboolu baat sama sama bi ñu bañ leen di tàtte ci suuf ñu ma jaar suuf te la ci gën a mën a nit ci gën a mën a nit ci moom après ça ala ba lam yama ba laaw ñooñu ci yàlla bi baal ñu ci gannaaw rasul ak yonent bi ñu ne mu jëkk la rek da daal di nga kam googu waaw léeg-léeg yow la yàlla man war na moom mos a aji barka la mu baaxuñu aji ci këram rek dina la jël ak dina ñaaña di jaay dina la danañu dajee saa daa ñaar xuraan yàlla ji de saa yu saa yu dugg aw lay apaaw yow ci këram reen ak bu ramaat gannaaw ab dajee seen naq tam ci mbugal naq tam ci naareen ba laay fa yàlla de waaye nag dina ak kañaaña amoon gëm nañu rek dafa li nga gëm gëm la réeram yàqaaw laaw lay ñu ala kulli xam mu fa kabiriñu ci biir képp xolam aji réeru jàppaari bi aji mbëru de waxaale ba asraawna salaana yaa xamaan yow xamaan ibni tawaxa li ñaan ma saxami saxam kaw bu daal nguru de mu ne ko tabaxal nga nguru laa di jëm ne asamaan man ñetti kilomètre ba mu ko tabaxee ba mat li ñu la romb ko rek riis ba magam yi mu def ñett ba daanu ci biir ke benn ba daanu ci dëkk ba alal alal leen ba daanu foofa xam xool mu la saxoon rek da xam ne dafa am ban lañ la bëggoon parce que bu ko lay asbaara samaawaati yoon asamaan nag mooy li ñu loolu nag damaa ko gis kare jëm ci asamaan ma jaar ci kare nag ba xaleoon sama yor loolu ilaa ilaa Muusaa jëm ci yàlla Muusaa jële su ko defee ma yéeg waa dem ci yàlla Muusaa jële naka man laa ma ko dana ma lakk Muusaa kàddu la ñaari ma waaye li mu wax ne yàlla bi maanaam na sax te dana na dafay nar rek waaw waaw waaye xaalis ak dem googu la réeral réer naa rafetal di garaaw na ñaar garaaw na soo amal yi ñaawal jëfal de wa tax da tam fekk ani ka di ñëwee yoon nañu wa maa kay lu garaaw na jël taxal garaaw na ilaa fi tabax bi ndax dina tënk perte la ba xaaral ko wax léegi waa ji nga xam ne amal gëm ñu sama ci tabi yoon topp leen ma adi ko ma jubal leen tabi dara fari yoon jub de yaa xaw ma yéen sama naa adi xaat bi ne na ko dee dundal àddina ma taxaw ñu bële li ñu yóbbuloo rek fan way na laa xaral naka laa xaral yéen moom daal xaraale mooy keroog sax waaye mën naa ne ku jëf lu mu sëy ak ñaaw téer salaa isaa di xëy sëy lam daa nga rek am rek ba mën naa ne ku jëf lu mu saaloo ngir jigéen ñu sax kariñ ci yàlla moom góor la awoon saa yi ko jigéen boobu tam moom moom aji dëgg la wu boobu laa ko ñëw la gaaye yàlla xuloo dama ñu xaral aljana sa aljana ñu saxoona leen war sa leen sa aljana bi xaw yi saa yi ci ab lim de بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وسائر العظيم ورضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن يكفر بيننا وبين المدرسة الإيمان بالله maa ngi leen a man adama ko may woo leen di leen a jaati jëm ci nit ki lu ma leen woo ci yéen ñu def ci dugal wata da ngeen di woo yéen yéen ngeen jëm safara yéen ma leen a ci yàlla waa xam ne leen di dugal yéen ngeen di ma woo ci safara te mooy kéefër te ba mu ne dangeen xaw ma jaag si la ngeen ñëw xam nga du du laaj ci yàlla aussi que sama bokkaay bi moom maa weesu bii le fait que bii ci ñoom xam-xam de waaw na man atamakum ma xaw leen di leen xaw si si jëm ci àgg rek ci wuram alxafaari ko dafa di ba am ay ay alxafaari ko daal day bàkkaat ñëw ci suuf de laaj ma sëgg na maa la da ngeen xaw ma ni jëm moom léegi seen wàllu yëpp ñu ngi ko daaw ak alhamdulilah di ñu leen jaay dina wala ak yàlla bu jaayee nga xam ne te de ñun ñëpp dina jaamu ko man dina ko jaamu ndax bu booy a yàq dina dund ñu ngi jaay ñu ngi a jaay laa xëy na waaye na ma la banaa naka jàllewaay fi mu di la laaj yëngu ci yàlla rek na mujj na naka a mu su ko tëkk ba nga xam ne kat li ñu leen janoon mu gën maa ko yéen ñu wax lépp ñu ngi leen soo xamee ne seen jën yàlla ñëw na da ngeen janoon mu gën safara da ngeen fas ci sama wax di wax ci aw dëkk waaw di fa jaamu yàlla de mais boo ko wéesu dana ma jagal xam nga yéen di leen doon jëm ci yàlla de dina laa nekk yàlla parce que dina joxoon moom bi la bàyyi ji jaamu de ñu ne man joxe naa sama mbir jëm ci yàlla dañ ko koy dañ koy rey rek ba wax waaw laa ko musal ko yàlla te yaati ma ma sore yoo waaye ñu naan lañu joxoon de rey kañ joxoon ba ñu ko waree yàlla musal ko ñu rek dara na daal di yebal ay gi soldaaram la ak seen i gànnaar ñu leen jëm leen fii ba fekk rek nga dee ñu ñëw fekk seen picc yi rek mu ngay jaamu yàlla ñu ñëw nga ko rek gaynde dox seen diggante moom rek waaw di wér ñoom ñu ngi bët daw waaw moo tax bay ñooñu baax itam képp ku képp nga wax ko rek waaw yàlla dama dox sa diggante kële képp di oo bi am réew laay laa ba suñu bila baari yéen si na moo waaw ku nekk ci jàq te waxu laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu mina zaalimiin dëgg gi la ci yàlla teg parce que jot naa la wana jënaa la xam ne la ci yàlla teg ak koo xam ne waaw sëkk nañ ko ne ko fay noonu ñu ñëw waaw xaas naas ñoo laa wane ma la la ci fan xale boobu nee na si ñoo laa fab ñu leen ak koo xam ne ay noonu mu ngi koy fexeel bëgg ko rey sa waxu yow foofu doom réew la laa ngi ci teg ne sa waxu laa ma ma tëdd naaru safara ñoo la doon def na lakkaloon ala ja safara de ñoom noon yooyu nag daañu leen lakk ci safara bu àllaaxira ku dugal ci lële bu wax yéen ak ci ngoon ku ci dee rek bu xasee dee dañuy def ñu koy yóbbu ko safara di ko lakk ba ñu ñu génne ci gën noonu la ñuy def duñ génne duñ ci safara fi gaatee duñ ci gën di jàng dañu leen di lakk luñ dugal daa ngoon wa yow ma taxaw ñu def dina taxaw saa nag daañu wax ne waa dëkkiloo xar salaam ala salaam ñu salaam na asabdal azabi dañ jot a yàlla ñoom ñooy bañ a àtte jaamu ñu ne yóbbu leen Firawna nag waa ci safara sa gën a a rek sur jàngatal jota jéem a bëgg nañu xunu ci meeri ji safara way toppe ña ak sa ngeen doon topp taa wala ñu ngeen ci yoon ji ñu ne safara da fa way da ñi mooy ña doon toppe dina ci ñu ñaan ñaan yi tak wërëw rëy nañu di naanaka ñun ku naana ko ñoom tabaan gooy topp lakum ci yéen xam ngeen ne ñun ko duñ lañ toppoon rek waaw am ci ndax yéen mux noona way jëñoon yan xam naa ci niñ nokki wanat cét muna naa di gi safaral ci ñun ji xanaa da ngeen ñu tegal def ci safara si xaala allazina nga xam ne istakbaru kullum képp ci ñu mel yéen yaa way naka lañ ci safara wa dina laanaka yàlla xat xat ma ak nañu dañu ne baat diggante jaamu de eh bu la ñuy tànkal ñoom yéen a xam rek ñun ñëpp ci safara la ñu nekk yàlla xat na ba noppi la waa xamante ni rek ñooñu dem aljanna dem nañu aljanna ba noppi ñun nag ñoom yéen a ñu ci safara si de waqaala wax allasina ñaane ci naari way naka lañ ci safara ya xasan ci jahannama ñeel bëkk nii di jahannama ud'u ñaan leen rabbakum borom seen yu xaf ci mu woyofal xanaa walis ni yoman seen bés de ñaa faagu ci mbugal mi rek ñooñu ko yéen ñoo daw yéen bëkk yi safara yi yéen malaaka yi waaye ñoo leen yàlla ñu ko waxal ñu bëggoon ñu benn bés rek ñu noppalu ko daañu wax loolu ko junni at ci xati alaaxira xaaru ñu wax ñu soog leen sant na leen awalam takk ndax nekku doon saatikum dikkal leen rusulukum ay yonent ci yéen bil bayinaati ci mujisaat ndax xamaa yonent yi waa bu ngeen woon te wan ngeen ay kaase xaaru ñu ne bale aan aan ñu ko yonent yi Aadama ñu dañ leen a weddi woon xaale ñu wax ñoom malaaka yi ne Fatma ñaanal leen seen bopp Fatma ñaanal leen seen bopp ñun ñu am mu yéefar wama daawul kaafiriin yàlla daal di tontu ne wama daawul kaafiriin waaye déet ñaanal yéefar yi laa ko dalaa ngala ci ñàkk waaye yéefar moom ci ma ñaanee duma ko may ci dina am xelul danañ turu danañ dimbale dina ci leen ah ay yéen a ngi suñu yéen si naa ñaañu amoon na dem ñu ngi laa di dundee di dundee waat ba yow ma la xaw ma yàqoo ma ak bés dana taxaw la saa di seede rek yow ma laa am fan bés ba jëriñ si si saa bi ñu na wala weddi ña maa si rek ñu la ngant seen de luñ gant lu gant lu yàlla leen nangu de wala mu war na ci ñoom daana di sëriñ yërma de wala mu war na ci ñoom ak soowu daari mu jëg tëb jëri di waa mu jëg waa wala ñaa war na ci ñoom soowu daari gën te mooy safara wala xadaa tey naa ñun de jox Muusa Muusa alhudaa tawreet yàlla joxoon na Muusa tawreet wa awaras naa tan jox bani Israayila bani Israayila alkitaaba tawreet gannaawam gannaaw boo xamee Muusa jot na fi bani Israayila ko ci moom bu dem di ñu aji jube leen wa sikraat di waat nii la ndaar ñeel waram tamit sell parce que ñu ngi lay yónni yàlla Muhammad sallallahu wa sallam inna waadallaahi naka doxal ak yàlla ci dimbale ay xajjam xaqun aji dëgg la de sa yow ci nga bokk de wastaqir bari ni dembike ci bakkaar sa ndax ñu mën laa topp wasta bi sabawal bi am drabike mbir ñi waa ji lambal jëm ak borom sa bi asiyi ci léeg-léeg walib taare bi asiyi ci ngoon walib taare ci bari ñu na les na naka ñooñe di jaay di doona danañu xuru te ay ci laa jaal Quraan yàlla jataay bi suñu gindi lay ataaw wooy dikkal na mu leen suñu gis jëriñ géej nekk ci xol seen laaj ci lim lay réy réy rek a tax ñu bañ topp yonent bi yaakaar na yàgg yàgg mën nañoo def taxe mu tax ñu seeti yonent bi kaw te loolu duñu ko xam mukk maamum ngeen ñoom di baale ko ñu di way jotam duñu xam mukk li yaakaar rek parce que muslim di seen waay billaay ci yàlla yi nee na te moom moom moom liggéey bi seen wax al ba jëli mooy yi la xam ko sama waati dañ ne ku dee yàlla di ko mën a dekkal yàlla ne la xam ko sama waati bindee asamaan ni juróom yaar wala rek suñu juróom yaar ak bëri moo gën a màgg ñun xam ko naa si si bindee ñu ñu yoonu ñaareel de xam ngeen ne daal ne asamaan ak suuf ak lim lamboo ci fas loolu dekkal ku dee safu ko rek wala ki nekk ak sama naa si gën ji bëri ñoom laa yàlla mën a xamuñ loolu waaye sëy xemootib lama aji weddi wal basirawu aji xam aji jëfee wal basirawu aji gëm koo xam ne dafa yéefar di silmaxa ak koo xam dafa gëm yàlla di jëf ñooñu ñu réewuñ de di leen wala si na ñaaña amano gëm nañu wa amilo tañ jëf saaliyaati farata ak naafile wala mu si di jaagan aji weddi ak kuy def jëf ju baax ak kuy def jëf ju bon ñooñu ñaar ñu réewuñ de qalilan waa ci gaa ji néew maa tasakkaruna waa di seen de inna saa'ata naka bés pénc la aatiyatun aji dikk la mu laa rayba di ci tukki yaa ci péncam yàlla walaakin lakiina aktaran naasi gëm ci bëri nit ñi laa yu'minuuna gëm ci ñu de wa qaala wax na rabbukum borom seen ne ud'uuni ñaan leen ma de ajib ma nangul lakum ñaan leen de yàlla nee na ñaan leen ma ma nangul leen de ud'uunii jaamu leen ma astajib lakum ma yool leen de jaamu leen ma ma yool leen ñaan leen ma ma wuyu leen de xeetu yeneen ci ñoo jagoo yàlla may na leen digal ñoom ndëf nangul lakum ñaan leen de yàlla na ne ñaan leen ma ma nangul leen de ud'uunii jaamu leen ma astajib lakum ma yool leen de jaamu ma ma yool leen ñaan leen ma moo wuyu leen de xeeti yeneen ci ñoo jagoo yàlla may na leen ndigal ñoom ñëpp su ci ne sañ naa ñaan yàlla xeeti jëkk yàlla ñun nag ku ne buñ ko ñaanee danañu nangul dana la jox jëmm li nga ñaan wala mu yëkkatil la balaa wala mu jox la leneen lu jëm ñaan loo xam ne soo ko xamoon woon ñaan wala mu denc la ko ba alaxira mu ne mu ne lii yàlla denc leen waaye ñaan moom du ñàkk a nangu mukk im na lëf naka ñaan yestak yi doona gën a yërëy loone baada ci yónni da jaamu sama dafa leen xam ñoo xarab jaam na ma jaamoo daaxee na mbir ñu mu torox de ñu réy doo ñaan yàlla na safara lañ jëm <coughs> laa wàlla dafi moo bur bi nga xam ne la bind na mu lakkum ñaa leen day a guddi di sëf ci moom na nga noppalu bii ci moom de wana xarakan def bëccëg gis tëral muy aji gis loo ina laa naka yàlla la soo xadum borom gënu laa naa fi si nekk naa fi jël jëbbal yi nit ñi laa ci yoon sant ci yére zaalikum kooku la seen laaw moo yàlla rabbukum koy borom seen xaaliqu kulli shayin yàlla muy aji bind lépp la laa ilaha déet bur goo jaamu ci dëgg ilaahu wa dara moom faa naa te fëkkoona moo naka doo fi soppee leen wali sa jaamoo ànd ak taxaw ak layu te saa ni ke kenn soppee fi ne ñu fukk la doo fi soppee ala si ñaane kaana nekkoon nañu te sa dina di weddi de haasilaayu ci kaw suuf yàlla de allahu yàlla la fi mooy boobu nga xam ne jaxan la bind nañu lakkum ñee leen yàlla leen bindal si yéen mu nekk seen soxwaay da sama seen bind asamaan dina am ni dim fii moo leen tabaxal asamaan mu ne mu tiim leen neen sa lolam néeg moo xam ne yaa ngi ko tabax mu tiim leen wa sawarakum tam bind leen fa ahsana tam rafetal suwarakum bind ay melo seen di bind leen yéen doomu aadama ci melo yi rafet waa xaw bàyyi mooy dañuy tax taxaw ak ñaan ci tànk jiital seen bopp waa xaw di lekkal seen i waa yàlla bind doomu aadama moom waa bind bu rafet bi ñu ko bind waaw muy taxaw ak ñaari tànkam waaw ay ciiram benn diggante wut ak morom ma wa rafaqakum tam wërsëgal leen ñetteel mu jox leen ñoom ñu tooy eh, gannaaw boo xam ne bàyyi nañu far ci ñaxam rek lañ nekk waaw doomu aadama moom mu gën a tawa bi mu nekk njaxas yu bëri ñu fokk ko lekk te doomu aadama meññet rek lay dunde waaw du lekk mukk ay xob waaw ay meññet waaw meññet yi yàlla bind rek da leen yàlla y leexal leen saalikum kooku ni fiim ndaaw mooy yàlla rabbukum koy borom seen parce que daala ko bëri na laa yàlla rabbul alamin sa moom di mooyu de woo moom alhayi mooy mooy dund dund boo xam ne ak ñàkk mos ko jiitu ak ñàkk di ko mujj mukk waaw ku dul yàlla mas ngaa ñàkk waaw sogaam li nga xam ne itam yaa ngi séntu ak ñàkk te du ñëw kon am li ci diggante ni nekkut yàlla nag moo mas di dund dund boo xam ne waaw ak njël yéenam ak ñàkk mu ci koy jiitu ak ñu jëm ñàkk di ko yéeg kon nag moom rek kay dund laa laa di di boo jaamu ci dëgg laa wa ngara moom parce que woowu wéete leen ko jaamu muxlis ci na ndig ñu leen di woy ko loolu la ñëw ko dina topp alhamdu xaaj cëpp yonente billaahi ñu ñaan yàlla rabbil alamin sa wuru mbindéef kul waxal indi na ka man ñu hiiti tereef na ma ana abuda mu ma jaamu at ala sina ñaaña ta doona da ngeen jaamu ko yéen mbindéef laay lu yàlla wax leen ne man kere nañ ma ma jaamu kere ma jaani ba dikkal yow naa naa fi saako yi teg tamit yéen a yàlla de dina rabbi bu ma jëb digal di rabbi alamin ngeen dugg ci ndax aadama seen baay dugg suuf lañ ko bindoon moom ñu tëgin topp ñu bind leen la xatim topp ngeen dugg ci limbi ñu wax ci seen topp danañu jëñ leen ci seen lim ñu leen di ndaw su ma yi tablu ko topp na ngeen jot ak dëggu ak dëgër seen xale bi nga dund ba yoo xam ne am na ñett fukki at wala ñeneen fukk su ma leen tàkkoo ñoo topp nga nekk si yoo xam ne màggat gannaaw nga màggat waaw mooy dara ci juróom benn fukk wa minkum ajnakala ci yéen a seen mu ngi too faa te def na faat ko min xam li day dëkk am na ñoo xam ne balaa ñoo màggat dee te diggante yooyu waaw wala tam la ko ak na ngeen dund ba jot ak yeneen digli saman bi dañuy dawal de waaye ku nekk ci yéen daal dana dund ba àgg ci dawam de wala lakum ab booyeen tàqu dana ngeen sant xéeram boo moom àll fi moo bur bi nga xam ne yéen dana mu dundal wa yéen ñu rey te saaka baane ma tunu mu amrana wala mbit te na ma yaqoonu naka dana wax loolu ñoo kub nekkal te yaqoonu te moom dana mu nekk alam tara ndax bisuloo ila la fi jëm ci ñooñu ñu jaagu noonu dana ñu kunu te a ci laal ca alquran ji am na gisala naka de fottere ñu dis jëm am na dina ñu ana te boo yor nañu di kitaab ji alquran da ji a arsalna a keneen yéen di ci moom rusulna a yéen di sunu fa soo fa yàlla mu na xam ne ñoo kañ ci lax laalu ba gaxeya ya an xaqima li nekk la ci loo seen de ba nga xamee ne seen nañ leen ñoom ba gax leen waa xaj ko ci seen loos ya de wa sarasilu calula ya aji nekk la ci tànk seen de dañ ko xasal ngir ak banam de waa bu ñu gax seen loxo xeew ko takk ko ci doq yi waa def aj calula ci seen tànk de yu sagoona def na diri leen ci daan ni ci jaanama ñu dina xëccëg seen yooya nag yéen wat jëme jaanama de kenn ku ci nekk bu yàlla na ko soowu waa faatu doo waa juróom ñaar fukk dina ci malaaka ñoo koy jëkkante ku nekk ci ci malaaka dana fa teye ñu ñu ngi ci ñëw topp ca safara ñu cëroon dem ak taal leen de ñu taal leen ca safara fa de su ma topp waxee loolu ñu leen ay na maa kuntum ana la ngeen nekkoon ci ko di bokkaale ñu ngi lay yàlla ana ngeen doon na fa di yàlla ñu wax ne ballu ñu lay jëkk fayal dara ñu ne dëgg-dëgg ñun jaamuñu woon dara wóor na kasaari a tam yooyu leen naara ñun laa lay réerale yàlla alkaasi na wéy dina saalikum loolu seen ñaa kundum ci la ngeen nekkoon tafraxaw na di dëgg ci la rëgg suuf bi xaari xàq ci lu ñu dëgg ñu leen doon dégg moo xam ne du dëggam dëgg wa bimaa kuntum ak ci taas la ngeen nekkoon tamrahuuna da ngeen faataayu de mooy dég ba mu ma ëpp nag da ngeen daa dég ci àdduna waaye fa xam ne di jégu leen woon ci dëgg waaye di dég bay faataayu léegi na kay gaa ngi wuddu xuloo xalaw leen ab waaba jaanama bunti jaanama xaali dina dit mu ngeen di wéy dee xiyaar bi fa bi sa bon na masal mutakabbiriina sax waaye way réy lu ñële mooy jaanama rek sax ngir muñal dina wax de laay naka doyalal yàlla axon aji dëgg la tey maanur yaa naka ndem wan nan la baadale fii leen laala nane doum gën a mu doy leen ko boo gis ma naka nooxale de aw na taw fa naka ikenu faat la tey jox na def na delloo leen yéen a jëm ci ñun de wala xadaar seulement ñun de yónni na rusula yónante min xabika jël jëkk ko minu ma aji naka la ci ñoom man juróom-ñetti junne la yàlla yónni ñeenti junne yi ci bani Israël ñeenti junne yi ci mboolem nit ñi waaw loolu la fiet yi doon daw naa sëriñ ba wax na ko ca saaru dafa wédut moo tax waaw mu dañ tali ca waaw li wét mooy mboolem yonent yi lam bi yaawam batali na alfaka xadin lañ junne téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñenenti junne waaw rusulu yi waaw ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett wala ñetti téeméer ak fukk ak ñenent wala ñetti téeméer ak fukk ak juróom waaw ñooy rusulu waaw boole seen nag waa ñooy yonent yàlla yi de wa maa kaana nekkut li rasul ñaan ku yónni an yaatee mu di seet gaa ci kaatee ilaa bi isnillahi la ci ndigalal yàlla de ndax jaam yi moom lañ tey saa jaa dem dikk na amrullahi ndigalal yàlla ko si yaateer seen diggante seen diggante way weddi bilaq ci dëgg wa perte mu naa li ko foofu daal mu kiloona way baatu ñi rek allah yàlla la mooy buur bi nga xam ne jaala bind na mu lakk ñee leen la naama ji dikkat yi jële moom nag ak di tarka boo ngeen ngeen waar mi naa ci ñoom am na ci yoo xam ne geen leen di waar mooy gëlëm yi <coughs> mi naa ci ñoom tàkk leen ngeen am na ci yoo xam ne da ngeen leen di lekk laa wala ku ñaan leen fi aa ci jibi manaasi waaye njëriñ mooy xaw ma ak doom ya waaye ak waba ma soosale wali sab lu xoo ak ngir na ngeen jot alaa ci moom xaaja sun xaaja ci su dóorikum yu nekk ci xol seen de ak bu ngeen bëggee sëf yóbbu ci réew yu sori ci bàyyi may ngeen koy sëf de waala aa ci ñoom bàyyi may waaral furki ak ci gaal yu géej gi suuf ma doon la def waral leen bu ngeen dikki de wayrikum dana moom leen aati kaawteefam faaya aati laay ana kan ci kaawteefi yàlla suñ ci la mee firoo ndax dañoo kay fa kaan na kay nekk ak ah, def def ñu bëgg ñu ñu xam do ñu ñu def def kaanu nekkoon nañu ak sara di gën ju bari ñu ci ñoom waa sa def ja fab ku watan ci kattan waa saaran ak ci jëy ci dal na ci suuf ma wax naa waaye jëy anam ci ñoom maakaanu lañ nekkoon def ci woon di fàggu rek dañ doon fàggu jëñoon leen buggal ak yàlla moom ba mu dikkee rek falammaa di baynaati ci mujisaat fari woo ñu la nekk fa ji ci yonent ya am di leen weddi diin ci ñoom maakaanu lañ nekkoon def ci ji ci ci falammaa raxaw ba ñu ganoo ne mbaa sonaa mbugal sunu xaaral ñu wax ne amana gëm nañu billaahi ci yàlla wax da woon bi ñu waa ji wéet wa kafarnaa weddi na ci lañ tul dee bokkale bi ci ñun falam yàkku nekk ci yéen xamam bu jëriñ leen imaan moom gëm seen dama raaw bañ jënoon ba ta même bëgg ci de bu ñu gal xafee wàcc ku gëm dootu jëriñ sunnatullaahi mooy baaxal yàlla way jëkk ñun léegi waa baax ba nga xam ne sab xalaat jiitu woon na mu dina daal di ci jaamam wa xasira perte na mu naa li ko foofale